mbokki jullit di mbokki taalibe yi li ngeen doon xaar agsi na yónnee ngir mën a bokk ci liggéeyu jumaay Touba te sëriñ lu Mbàkke waxoon ne képp ku ci farlu say mbir dina feeñ ba faw ku ci gën a jëf gën a jëm kanam gën a ëpp daraja waaye ku ci gën a des ginnaaw ginnaaw lay des rek ba faaw fondation Muxaddamatul Xidma taxaw na nekk fii ci Amérique ànd ak daayira mu xaadimatul xidma ca Touba ngir yombal leen ci ni ngeen gën a jàppandalee seen participation maanaam seen barkeelu ci liggéey yi ci jumaa ji muy lu jëm ci wàllu maintenance waajtaayu màggal gi dundal weeru koor dundal guddi gàmmo saytu almeeru bàqiya yi si taxawu personnel bi ak yeneen ngir tàmbalee si weeru safar gi jàpp ci waajtaayu màggal Touba mën ngeen a yónnee seen addiya ci site internet bi www.toubamoss.com mën ngeen cee jëfandikoo seen crédit paypal wala seen checking account lépp ngir mu jàppandi si yéen ndax du lenn kenn léppi ñëpp la te képp ku ci feeñ dootoo nëbbu ba faw numéro fondation bi 813 328 20 50